bi ñuy amal fii ci koor bi ngoon bi toog tey nag ñu ngi ànd ak Oustaz Abdou Khadre Diack Oustaz Abdou Khadre moo xam naa jëf présenté ndax am am solo bu koor bi commencé ba nañ ñi nga xam ne ñoo fi ëpp foog naa leen fi def ay émission nag Oustaz Abdou Khadre euh, dafa ñëwoon pour waxtaan ci Adams, Who oh, know items in here? Unit and items. The first human being on earth. Guys, I'm talking to you. Who know Adams? in here? Person Adam. Items. Oh, Adam? Everybody know him? Um, how long did he live for? Okay, so Sahab will be talking about um, Prophet Adams, inshallah. Um, Prophet Adams was the first human being on the earth. Um, he lived for 1,000 years. Um, he was here with his wife, Hawa. When they first came to earth, they, they both of them were in different places. And they had to look for each other for a very long time.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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu nekk ak ci bërëb bu tedd bii ñu nekk di ñaan borom bi subhaanahu wa tabaraka wa ba koor gi tàmbaleeg léegi mbooleem jaamu yàlla yiñ ci def yal nañ ko borom bi nangul ci yaatug yërmandeem mbooleem li ñu fi def ci ay safaanit yàlla nañu ko jéggal ci mbaaxam bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa bu loolu jàllee ñu amoon yéeney nettali sunu maam aadama alayhi salaatu wassalaam sunu maam aadama alayhi salaatu wassalaam téere bi nga xamante ne moom laa tiim te ci laa nara sukkandiku samay wax ci njëlbeen gi mi ngi wax ne yàlla day ba mu demee ba bëgg a bind sunu maam aadama alayhi salaam dafa wax yu suuf dafa wax yu suuf si ne ko man dama bëggoon bind ci yow dama bëggoon a bind ci yow ay mbindeef yoo xamante ne mbindeef yoo yi day dana ci am ñu may topp waaye it dana ci am ñu may moy mbindeef yooyu yi ma nar a bind ci ñoo mbindeef yoo yi ma nar a bind ci yow nag koo ci xamante ne topp na ma te mooy rek bi jëfe li ma ko digal te bàyyi li ma ko tari te bàyyi li ma ko tere bu ëllëgee insha allahu maulana ma tàbbal ko aljanna waaye nag koo ci xamante ne mooy na ma te mooy jëfewul li ma ko digal en même temps moytuwul benn yoon ci li may tere kooku ëllëg sawara ko jëme ci la borom bi tabaraka wa taala yabal sayyidina jibril alayhi salaam ne ko wàccal ci suuf nga tibbal ma ak ngëb ci suuf si nga tibbal ma ak ngëb ci suuf si ba jibril yegsee bëgg a tibb ab tib ci suuf si suuf si muslu ne ko إني أعوذ بعزة الله الذي أرسلك أن تأخذ مني شيئا يكون فيه غدا للنار نصيب ماغي مسلو تي تيد غاي يالا ميغا خامتاني مولا يابال nga bëgg tibb ci man loo xamante ne dafa nar am ab cër ca sawara yàlla mi nga xamante ne lay yónni ngir nga bëgga a tibb ci man loo xamante ne ëllëg daa nar a am ab cër ca sawara maa ngi musli ci moom nga bañ a tibb ci man dara jibril comme ko xamut ne comme ko xamut bu tibbee bu tibbee nga bëgg suuf si xamut ci lan moo ci doon cërub sawara ak lan moo ko ci du doon tax nag mu bañ a tibb dara delluwaat ci borom bi tabaaraka wa taala xamal ko ne ko mankat dama demoon bay bëgg tibb suuf si muslu ci yow muslu gi muslu ci yow nag tax na man itam ma bañ a dal ci kawam ci force moo ma taxaw wàññeekuwaat nii daal bàyyi ko sunu borom na ko kon toogal daa di yabal mikail alayhi salaam ba mu yabalee mikail alayhi salaam mikail ñëwal suuf si suuf si jaaraat ak moom fa mu jaaroo lan fa mu jaaroo nag sayiduna jibril te mooy ne ko maa ngi muslu ci yàlla mi nga xamante ne moo la yabal ngay tibb ci man loo xam ne ëllëg dafa nar a am ab cër ca sawara mikaayil moom itam dellu wax sunu boroom lu mel ne la ko jibril wax sunu boroom ne ko toogal daa di yabal malakul mawt malakul mawt turam mooy azrail mooy malaaka mi nga xamante ne képp ku dee rek moo la rey moom la sunu borom yónni ba malakul mawti ñëwalee suuf si nag ba malakul mawti ñëwee suuf si suuf jaaraat ak moom fu mel ni fa mu jaaroon ak jibril ak mikail waaye malakul mawti tontu ko ne ko man itam maa ngi ñaan yàlla mu musal ma ki mu jox ma ndigal may bañ may bañ a jafe ndigalam lool yi yàlla jox ma ndigal ma di ko may maa ngi ñaan yàlla mu musal ma ci nga xam ne ba mu waxee lool dafa daal tibb na muslu googi suuf si musul teew tibb ab tibb ci suuf si ñu wax ne dafa tibb mbooleem ñeenti koñu suuf sépp la tibb ñeenti ñu suuf sépp fu nekk malakul mawti tibb na fa ab ngëpp tàmbalee ko ci kaw suuf si tibb ak ngëb itam ci suuf si saf xorom tibb itam ak ngëb ci suuf si nga xamante ne suuf si teey la tibb ci suuf si nga xamante ne daa xonq tibb ci suuf si nga xamante ne daa ñuul tibb ci suuf si nga xamante ne daa weex tibb ci suuf si nooy tibb ci suuf si ñuul loolu moo waral loolu moo waral loolu yi moo waral sëtu doomu sët Seydina Adama yi sëtu Seydina Adama alayhi seeni jikko bu ngeen seetloo daa wóote ndax am na ci doomu aadama yi ñoo xamante ni ñu teey ay jikko lañ am ci doomu aadama yi ñoo xamante ne ñu bon ay jikko lañ am ci doomu aadama yi yu baax am ci doomu aadama yi yu bon am ci doomu aadama yi yu rafet am ci nag ñu ñaaw lool lii moo waral itam seeni couleur wute ngir ne keroog mi malakul mawti ba muy tibb ci mboolem xeetu suuf sépp la tibb xam ngeen ne suuf si am na suuf si rafet am suuf su ñaaw am suuf su nooy am suuf su ci loolu la borom bi tabaaraka wa taala wax ne wa min ayaatihi xalqu samaawaati wal ardi waxtilaafu alsinatikum wa alwaanikum bokk na ci kiimaanay borom bi day bind gi mu bind asamaan ak suuf ba noppi mu wuutale seenu langue ak seenu couleur kon ci kiimaani borom bi tabaaraka wa taala la bokk léegi ba malakul mawti tibbee koñ bu ci nekk mu tibb ci ak ngëb ci suuf si dafa daal di nag ba ci sunu borom borom bi tabaaraka wa taala digal ko ci naka mooñ na mooñ suuf si molécule mawti mooñ suuf si ndox mam ko doon mooñee nag am na ca ndox mu neex am ci ndox mu naqari am ci ndox mu saf xorom ci ndox moom yi ci law mooñee suuf sam tibboon loolu yi bokk na ci li tax doomu aadama yi seeni jikko wuute ba tey léegi borom bi tabaraka wa taala dellu woowaat jibrilu alayhi salaam digal ko ci digal ko ci mu dem ci suuf si nga xamante ne moo gën a rafet moo gën a leer ni ngir mu tibbal ko fa ak ngëpp ngëpp googi ci la war a bind sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jibril wàcc daari tibb ak ngëpp wax nañ ne Fam mu bi fam mu tibbee suuf si mooy fee ñu denc yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko tibbee mu mooñee ko ak ndox mi ñu wax maa ut tasniim ba mu ko mooñee ba mujj doon jëmm ni ñu wax ne borom bi tabaaraka wa taala daf kaa daal di nuural nuural nuural Hmm? yee ok ci la ko nural boog ci dexi aljana yi wa da kaa naq waa mi ngoog da kaa naq ci dexi aljana yi ci la ko ci la ko nural dégg nga ñu wax ne ba yonante bi boobu ak leer la woon de ba dafa daa di xool borom bi tabaraka wa taala ba mu ko xoolee nag dafa yelbu. comme ku ci ndox mi la génnee daal di yëlbu ba mu yëlboo wax nañu ne téeméeri junni téeméeri junni ci ay toq-toq wadd na ak ñaar fukk ak ñeent ba mu yëlboo nii rek téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñeent ci ay toq-toq waddee na ci moom toq-toq yooyu doon wadd ci moom nag ci la borom bi tabaaraka wa taala bind bind moroomu yonenteem yi alayhimu salaatu wassalaam ginnaaw bi moom yonante bi ñu di ko wërale asamaa u juróom-ñaar nga xamante ne sunu maam aadama moom laata malaayka yi li ko xam fekk nañu xam sunu maam aadama ba noppi nga xam ne yonante bi lañ ñëkk a xam ci sunu maam aadama mi nga xamante moom lañ ñëkk bind su ko defee kon sunu maam aadama ñu mooñ ko ci ban ci ban lañu ko mooñ def naa xam nañ lañ mooy ñoom xam nañ lañ mooñ yaa xam ne war nañ kaa xam xamoo leen mooñ daal nga ah, xam ngeen mooy lan léegi ba mu ko mooñee ci ban nag ba mu ko mooñee ci ban dañoo wax ne léegi dañoo bàyyi aadama dañ koo bàyyi noonu ba mu mat ñeent fukki at ñeent fukki at yoo xamante ne boo laalee suñu maam aadama ban lay doon nii ban bu tooy nii nga xam ne boo ko laajee day taq ni sunu borom bàyyiwaat ko noonu lu tolloog ñeent fukki at mu mujj doon ban bu dëgër nii nga xam ne boo ko laalee boo ko laalee day day boo nee nii da ngay dégg day mel ni fëgg daal ban bi fëgg min salsalin kal faxaar ginnaaw bi la ko sunu borom soppi def ko mu doon yaram def ko mu doon yaram nii daa di koy sànni nag bàyyi ko ci fii malaayika yi di jaar malaayika yi yoon wi ñuy jaar di yéeg ko wàcc fa la bàyyi sunu maam aadama alayhi salaam malaayika yi yéemu ci moom lool nii dégg nga ci ci loolu yi ci la sunu borom waxee ne hal ata ala al insaani xiinu min ad dahri lam yakun shay'an maskura ابن عباس داير هنا الانسان فوفو موي سونو مام ادم بودي حين نك موي نين فكي اديا موي نين فكي ادي امنا تي صحابه كوني واخ عبد الله ابن سلام موم لاجو نا يونت صلى الله عليه وسلم نكو انا لن لا يالا بني ادم مانام يالا نان لا بني سونو مام ادم نمكو بني yonent bi tond ko ne ko sunu maam aadama boppam bopp bi nii ak jëbi borom bi tabaaraka wa taala mi ngi ko bind ci suufus kaaba ga suufus kaaba ga ci lañ bind boppub sayidina aadama ak jëwam bu dee ginnaawam ak dëndam ak dënd bi ñu ngi ko bind ci suufus baytul maqdis ñaari poojam ñu bind ko ci suufu si yaman ñaari yeelam ñu bind ko ci suufu si Égypte ay dëggoom ñu bind ko ci suufu si xijaas loxob ndeyjooram ñu bind ko ci suufu si penku loxob càmmooñ loxob càmmooñam ñu bind ko ci suufu so mooy fii jant bi di sowe ginnaaw bi la ko yàlla bàyyi ca bunt aljanna malaayika yi di ko romb yéemu ci moom loo nii ndax dañoo musta gis ku mel ni moom melokaan yu mu amee lañ musta gis lañ musta gis lu ni mel ci biir lool yi ci la ko noonu yàlla bi di suñum noon rombee iblis alayhi la'inullah wax cim xelam ne waa kii lan moo tax ñu bind ko ba ci yàgg mu dóor ko ba mu ko dóoree daa dugg ci biir ci biir gémmiñ gi la dugg daal di génneewaat ci ginnaaw ba mu defee loolu yi ba daaneel fekk ne mi ngi am ñennet ñu mu àndal ci malaayika yi neneen léegi ah mbindeef mii de bu mu leen jaaxal mbindeef la mu néew doole ne daal di wax malaayika yi ne leen wax leen ma rek su fekkente ni kii yàlla daf koo gënal ci seen kaw nan ngeen nar a def ni ngeen nar a def malaayka yi ne ko xanaa topp ko xanaa topp suñu borom képp nag ba malaayka yi tontee noonu iblis wax cim xelam ne wat naa ci yàlla ne bu ñu ma gënalee ci sa kaw dinaa la moy te itam bu ma gënalee bu ñu ma gënalee dana ko bokk suñ la gënalee ci sama kaw dama lay moy bu ñu ma gënalee ci sa kaw nag dama lay alal ci maanaam moom yi la suñu borom wax ne wa a'lamu ma tubduuna ma kuntum taktumun kon kii maanaam yi saa damay xalaat maanaam nooneel gi lu ko war a waral daal lan moo tax mu jékki-jékki rek maanaam ëmmal ñi ëmmal ñi ak iñaan ni nga xam ne maanaam ba keroog ba suñu maam Aadama alayhi salaam nga xam doonu gut sax nit ci la ko commencé woon a soxale ak di koy iñaan ak di am lu mu koy jàppale yi léegi bu dee jëmmi xissa bi borom bi tabaraka wa taala mi ngi ko commencé nettali ci suratul baqara ne wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaacilun fi l ardi xalifa qaalu atajcalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa naxnu nusabixu bixamdika wa nuqaddisu lak qaala inni aclamu ma la taclamun léegi sunu borom dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fàttalikul keroog ba sa borom waxee malaayika yi ne leen kaw suuf dama fay nar a indi koo xam ne xalifa lay doon xalifa xalifa mooy koo xamante ne mooy wuutu yàlla am nañu ko firee noonu am nañu wax ne xalifa mooy koo xamante ne mooy wuutu yàlla ci kaw suuf dégg nga am ñu ne déedéet yàlla wuuti wut dara bañ koy wut waaye xalifa foofu ni mu fiy tekki mooy mooy ne léegi xam nga laata sunu sunu borom di bind sunu am aadama nii ay jinne ibnu abbas nee na ci saxaaba la moom day wax ne léegi ay jinne ñoo ñëkkoon a dëkk kaw suuf si nii ñoo ñëkkoon a dëkk kaw suuf si léegi bañ fi nekkee nekkee wuñ foon lu dul di xeex ci seen biir ak a xuloo ka ŋaayoo ak a yàq kaw suuf si ba mu yàqu ci la yàlla yabal iblis comme comme booba ci malaika yi la ndax daa fekkoon mu jaamu yàlla ba yàlla fab ko boole ko ci malaika yi nii waaye musta doon malaayika am naka jekk jinne la woon yàlla yabal iblis boole kaa ci malaika ñu wàcc dàq jinne yooyu bañ leen fi jëlee sunu sunu borom indi fi sunu maam aadama léegi indi gi mu fi indi sunu maam aadama kon moo fi wuti jinne yi fi nekkoon am na ñu ne xalifa loolu lay firi kon am na ñaari firin firiñ bu njëkk yi mooy ne léegi yàlla la fi wuutu ñii ne déedéet jinn yi fi nekkoon te suñu borom jëlee leen fi ñooñu la fi wuutu ba yàlla waxee loolu yi malaayika yi nag malaayika yi wax sunu borom ne ko atajalu fiha man yufsidu fiha ndax danga fee nar a def ñoo xamante ne naruñu fee nekkee lu nar a yàq kaw suuf si ndax ñooñ nga fi nar a teg ñoo xamante ni maanaam boo leen fi indee dañuy yàq kaw suuf ak xuloo ko ŋaayoo ko tuur deret ndax ñooñ ngeen ndax ndax ñooñ rek nga fi nar a indee di te fekk na li tax ñu wax ko loolu mooy comme mbindeef yi mu fi naroon a mbindeef yi mu fi ñëkkoon a indi nii xam nga loolu lañ fi nekkee woon léegi suñu borom jëlee leen fi dégg nga moom leen fi jëlee mu dellu waxaat leen ne dama fi indi koo xam ne moomay wuutu moo tax ñu ne ko yow xanaa naroo fee indi ñoo xamante ne bu ñu fi ñëwee na duñu fay nekkee lu di xeex ak a xuloo ka ŋaayoo te ñun wax dëgg fa ñu ngi lay sàbbaal di la jaamu comme ni mu waree fekk ne ñoom malaayika yi ñoom noonu rek lañ mën a waxee parce que ñoom yàlla def leen bind ñu doon ay jaam yu tedd doon ay jaam yu baax dégg nga mënuñoo mooy yàlla mukk mukk mukk kon xam nga ne loolu rek nañ nar a waxee fekk ne dafa am ma ju tax borom bi ko wa la bind suñu maam aadama wàccee ko ci suuf sii suuf sii Euh, day aajo woo ki kay dëkke doon koo xamante ni day am bànneex am naqar dégg nga lu woo defar ci suuf si mu mu defar ko dundalaat suuf si daal maanaam ma ji sunu borom def ci suuf si ak mbóot yi mu fi dénk dafa woo nag koo xamante ne mooy génnee mooy génnee kii bi mooy génnee njariñ léegi yooyu mais soxlawut soxlawut am malaayka boo xam ne day ñëw ne kekk nii rek sàbbaal bu ngoon jot mu dem ñibbi loolu moo tax suñu maam aadama su suñu borom bokk bind suñu maam aadama te fekk na loolu malaayika yi xamuñu woon loolu xamuñu ko woon وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين léegi nag ginnaaw ba leen sunu borom waxee lool yi ñoom itam ñu wax ko lañ ko wax sunu borom def leen a wax ne xam naa lu ngeen xamut xam naa lu ngeen xamut te fekk ne am na ku ñuy wax alxasan al basri moom wax na ne malaayika yi day keroog ba sunu boroom keroog ba leen sunu boroom waxee ne damay bind sunu maam aadama teg ko fi ñoom malaayika yi dañoo wax ci seen biir ne yàlla day munta bind ku ñu ëpp xam-xam munta bind ku ñu ëpp xam-xam alayhimu salaatu wassalaam moo tax keroog ba mu bindee sunu maam aadama mu nattoo leen maanaam mu xamal sunu maam aadama tur yii am nañu wax ne tur yii yàlla xamaloon sunu maam aadama mooy mooy tur yi ñuy jëflante ñun suñu biir mooy boo gisee xar nga xam ne lii xar la boo gisee bëy nga xam ne lii bëy la boo gisee nag nga xam ne lii nag la boo gisee oto nga xam ne lii oto la lii ordinateur la dégg nga lii ni fu mu ne ni muy nuru nuru li xeebu lu am solo Serigne Bassirou Khelcom day wax ni fu mu nii maanaam tur yii nii bu ñu ko suñu borom xamalu toon su ma ki may waxal mën a xam ne xar laa soxla il faut que ma dem ba gis ab xar carrément na ko lii laa soxla na ko lii laa soxla kon lii xam bu am solo ni léegi tur yooyu la la Ibn baa wax ne moom la suñu borom xamaloon sunu maam Aadama daal di koy umpale nag malaayika yi comme que ñoom dañoo wax ne yàlla lu mu garaaw garaaw mënut a bind li ñu gën mënut a bind li ñu ëpp xam-xam léegi nag sunu borom mu xamal tur yooyu sunu aadama malaayika yi ñoom xamuñu ko léegi ci la wax malaayika yi neneen bu fekkente ne li ngeen doon wax dëgg la te mooy mënuma bind lu leen ëpp xam-xam tur yee laa bëgg ngeen wax ma leen ba mu leen waxee loolu ñu ne ko subhaanak laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim tudd nañu sag sell amuñu ci amuñu ci dara maanaam amuñu xam-xam ci dara lu dul li nga ñu xamal loo ñu xamalul rek ñun xamuñu ci dara léegi nag ci la borom bi tabaaraka wa taala digal sunu maam aadama pour mu xamal leen tur yooyu pour mu xamal leen tur yooyu su ko defee aadama commencé nag di leen ko xamal par benn benn lu ci nekk mu wax leen lu mu doon alayhi salaatu wassalaam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 waa allama duuna wa maa léegi aay yooyu bu ñu leen jàngatee bu fekkente ne aay jàngat nañu leen danañ gis ne am na ay taraanga yoo xamante ne borom bi tabaaraka wa taala defal na ko sunu maam aadama te taraangal baay mooy taraangal doom taraanga bu njëkk bi mooy ne léegi yàlla ci boppam moo bind sunu maam aadama ci loxoy boppam ما خمون خمون ين لولم ديت يلا مو بين سنة مع آدم أتقول خي بابم أم نفنا فم كخيني وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من دين فإذا سويت ونفخت مم كخيني لما خلقت بوا ما يكسب بقول سخ ما يفهم يه لما خلق لما خلقت بيدي استكبرت أم قوم تمنع عليه لول موي ترى عنك بينك كي ترى عنك جينا خمن تني سنة مع آدم يلا دفعنا كوكو te teraangal baay mooy teraangal doom ñaareel bi mooy ba mu ko bindee ba noppi nag yàlla dafa fab ak leeram def ko ci moom te mooy ruu ruu leeru borom bi tabaaraka ko taala beneen teraanga bi mooy xamal gi mu ko xamal xamal gi mu ko xamal tur yooyu mooy tur yi mu ko xamaloon te xamalu ko malaayika yi loolu fi ne ak teraanga beneen bi mooy Euh, bind ko ba noppi sant malaayka yi pour ñu sujjootal ko sujjoot goo xam ne sujjootug teral la sujjoot goo xamante ne sujjootug teral la mais du sujjootug jaamu ndax jaamu moom borom bi tabaaraka wa taala rek la ñu koy def loolu moo tax am na xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ëllëg yowmal xiyaam day yàlla dina mer mer moo xamante ne keroog la koy mujjee mer te itam keroog la ko ma a mer su boobaa day nit ñi danañu jànkoonteeki coono ndax yàlla daf leen di dajale ci benn paak bu yaatu nii wàccee jant bi ba mu tiim ci seen bopp en même temps nag daal leen mbërgën noonu daal nga xam di leen xool xoromu lu leen benn yoon nii nga xam dañu mujj sonn nii ba noppi ñemewu ñoo dem ci yàlla léegi léegi su boobaa nit ñi dañuy dajaloo ñëw ci sunu maam aadama alayhi salaam tuddal ko ñeenti taraange yi ma wax sànq te mooy na ko yow sunu maam aadama yow yàlla moo la bind ci loxoy boppam walbatiku def ci yow ak leeram walbatiku xamal la ay xam-xam en même temps wax malaayika yi ñu sujjootal la ndax doo dem ci yàlla tinin ñu sunu maam aadama ne leen def leen ndànk yii ngeen wax yépp dëgg la waaye xanaa xamoo leen ne man kero man moyoon naa yàlla mooy yàlla gi muy wax foofu mooy mooy garab gi ko sunu borom digal garab gi garab gi ko sunu borom tere woon na ko bul ka lekk mu lekk ko loolu moo tax mu joxe ngànt yàlla daf ma tere woon ak garab ma lekk ca garab ga kon loolu moo tax ñemewu maa dem ci suñu borom naan ko di ko tinu daal dinañ sàkkul ci ma ak tinu ne leen léegi da ngeen di jàll ca sayidina ibrahim ba xam ñoom nit ñi ñu jàll si ñu jàll si ci sunu maam ibrahima alayhi salaam na ko yow ibrahim yow yaay xaritub yàlla wattaxada allahu ibrahima xalila ndax doo ñu sàkkul yàlla mu dimbali ñu ci coono bi ñu nekk kii dem aljana dem aljana kuy dem sawara dem sawara waaye sunu maam Ibrahim li muy tontu mooy dama fenoon ci diina ñetti fen te xawma ndax sunu borom mi ngi ma ko jàppem déet kon dem leen te nuuxin ba xam ñu dem ci noox noox na leen man dama ñaanoon yàlla mu ñetti fen léegi yi ma ci teewlu daal mooy na léegi keroog sunu maam Ibrahima alayhi salaam dafa mosoon a ànd ak soxnaam Saara dafa àndoon ak soxnaam Saara ñëw ba ci ñëw ba ci benn dëkk boo xamante ne. yee mooy dëkk Égypte mooy Firawna yooyu ah, yee ak Firawna la woon daal mhm. mu doon ku topp bakkanam nii mhm. saay saay lool léegi te fekk na soxna Saarata moom yi daa doonoon ko rafet nii te léegi buur bi daan def nag képp ku ñëw indaale fi jigéen ju rafet dalay rey ba noppi jël soxna si dalay rey jël soxna si léegi ba Ibrahima ñëwee ànd na soxna si ñoo xamal buur ba ne ko am na benn waay bu fi ñëw de boo xamante ne ànd nag soxna si rafet nii léegi buur bi woolu ko woolu soxna si bopp bay soxna si dem Ibrahima ne ko léegi boo demee nee ko sama rakk nga xam nga du rakkam nee ko boo demee nee ko sama rak nga loolu mooy première li muy wax ne kii la fen la beneen bi mooy keroog ba nga xamante ne ay nitam tàggu nañ ko dégg nga tàggu nañ ko ngir doon def ci benn ngir doon def ci benn feet xam nga suñu maam Ibrahima alayhi salaam daa doonoon ku daa doonoon ku sib jaamu xërëm nii jaamu xërëm da ko siboon lool nii léegi nag ay nitam am benn jour ñuy organiser benn feet nii يه بل فعله كبير هذا بسأل إن كان يدخل عليكم السلام ورحمة الله كبير هذا بسأل إن كان يدخل لاجي بك نيني بمي أنا نيني بمي أنا نيني دي دام سين فيك غوغي مو واخ لين إني سقيم دما فيبر تا فيك نا فيبر تون موم لي سن وروم دي نيت لي فيه <laughs> ما شاء الله تون من نغا ñetteel mooy li ustaas wax sànq bal pan fa'alahu kabiiruhum haadaa fas'al in kan yantiquun te mooy bañ ñëwee fekk xërëm yi toj ba mu des benn ñu woo ibrahim ne ko xërëm yi lan la mu wax ne xërëm bu kii xërëm bu yàlla ju mag ji ma ko def yow. ba mu bëggee dem ba la iyaak kon ñetti ñetti yooyu la sunu maam Ibrahima wax ne. moo tax du mën a àgg ci sunu borom daal ginnaaw bi la wax la wax nit ñi ne leen jàll leen ca sayyiduna nuux ñu dem ci nuux nuux ne leen léegi man dama ñaanoon yàlla mu labal waa suuf xaw ma ndax loolu sunu borom mi ma ko jàppeem déet kon da ngay ni jàll ca sayyiduna isa ñuy ñëw ci isa isa ne leen man mii nit ñi jàppee woon ma yàlla ñu koy ëmb fitub àgg ci yàlla <laughs> jàll leen ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente bi wax na nag buy boobaa bu ñu yegsee ci man day man maay dem ci arsu borom bi tabaraka wa taala sujjóot fa sujjóot bu yàgg nii su boobaa yàlla dana ma xamal ay baat dana ma yenkeewal ay baat yoo xamante ne moom laay wax su ma ko waxee sunu borom ne ma yëkkatil sa bopp loo ñaan ma jox la te itam koo tinu ma tinu ko koo tinu ma tinu ko loolu li tax ñu nettali ko mooy teranga ji nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala defal sunu maam aadama alayhi salaam te teraangeel baay mooy teraangeel doom doomu aadama bi bu xamee lool yi nag war a góorgóorlu bu baax ci la ko war digganteem ak borom bi tabaaraka wa taala daw na ci nekk mu ci góorgóorlu ak di ñaan yàlla mu dimbale ko ci kon loolu mooy li aju ci mindum sunu maam aadama alayhi salaatu wassalaam léegi sunu borom continué nettali ba tey ne wa iz wa iz qulna lil malaikati isjudu li aadama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kaana min alkaafiriin wa qulna ya aadamu uskun anta وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين لور سن تبارك وتعالى ديكي نيتلي يا محمد فاتلي كل keroog keroog ba sa borom waxee malaayika yi ne leen malaayika yépp nangul borom bi ko wa la comme ñoom noonu ne leen yàlla bindee munu ñoo mooy yàlla iblis mi nga xamante ne nag moom musta doon am malaayika lu toon tarfatu ayni moom lànk lànk lànk carrément ne man du ma sujjóot léegi ba mu lànkee sunu boroom ci boppam xamna na li tax iblis lànk waye dako koo laaj ngir bëgg iblis saxal layu bopam mom motax mu nako ya iblis ma manaaka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday astakbarta am kunta min alim yow iblis ana lan mo dox sa digënté ak su jot su jotal li nga xamanteni man mako ko bind ci sama loxo sama ñaari loxo man ma leen ci bind yow da nga réeréer wala da nga bëgg ci aaluuna yi aaluuna ci sëriñ Samba yi nii rek laa ko déggee mu wax na léegi ay malaayika lañ yu foor yoo xamante ne sunu borom daf leen a fonk ba ñoom bokkuñu woon ci ñu si jootal suñu maam aadama neen ñoom bokkuñu ci woon léegi suñu borom wax iblis na ko yow da ngaa rëy rëy wala ngaa bokk ci aaluuna yi waaye lu iblis tontu dana ko ana xayrum minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin dara doxul sama digganteeg su dootal ko lu dul ne damaa gis ne maa ko gën iblis ci gis-gis la moom daa jàpp ne moo gën suñu maam aadama ngir ne léegi moom ci sawara lañ ko bind te suñu maam aadama ci ban lañ ko bind te ban daa néew doole te sawara moom daa am doole dégg nga leer di lakk di def lu ne bu dee ban moom mënul dara noonu néew doole noonu moo tax mu a léegi <laughs> man maa ko gën sunu boroom na ko léegi nag na nga xam ne yellootoo dëkk ak man fii ci sama pays bu sell bii comme que yow léegi dama lay sant ngay bañ yellootoo dëkk fii fii ak man léegi da ngay génn ehm, ba ko sunu borom waxee lool yi nag moom iblis walbati ko ñaan sunu borom ñaan sunu borom na ko wax nañu ne iblis ba mu nee sunu borom pare woon ngir jéggal ko ba mu nee xam nga maanaam bi yàlla da baat boobu daa neex yàlla daal boo nee rabbi daa neex yàlla lool ba mu rab bi yàlla moom pare na pour jéggal ko waaye lu ci iblis teg lu ko lu ci iblis teg mooy dafa gën a maanaam dafa gën a dëkk yàlla nii daf ko gën a dëkk carrément na ko yow léegi maanaam <laughs> na nga yow léegi ñii soo ma fi bàyyee insha allah li ëpp ci njabootam moom aadama yi nga xamante ne moo tax nga bewloo ma li ëpp ci njabootam dinaa leen bewloo loolu mo sabab mu ñaan yalla bàyyi ko fi ba nigi ni ci iblis mi ngi dund mu don ko gudd fan ba legi iblis mi ngi dund alayhi ilallah dara taxuka kaa gudd fan lu dul bëgg yaqal doom adama kon kon ki doom adama da ka wara a xel jamono ji nekk ni faraqibanhu fi kulli waqtin wa zaman bil harbi wad bil harbi wad difa'i kay tukhfal mihal serigne touba wax رضي الله عنه جامونا جي نيك ديك باي خيل ني دنج دي خري اك موم دنج تاي ديم نيكو بوروم بي تبارك وتعالى مو واخ سونو بوروم نكو فبما اقويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مزؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين يا إبليس عليه لعنة الله أحسن بابا نكو بيولا نغم دي واي دي يون وجوب ويغا بغ نيني جار فا نغا خامو تني كوچا جار موچ من فلاي فلين كلا يني فخ بكين دو فجار ثم لا آدم موي دنا لين ديكي ندي جور دنا لين ديكي تاموني dinaa leen dikke kaw dinaa leen dikke suuf danaa fexe daal ba ñi ëpp ci ñoom itam ni nga leen di xéewale nii danaa fexe ba duñ la sant nii cant cant gi ci yàlla danaa fexe ba duñ la ko sant nii ba mu waxee loolu suñu borom gën ah ah dégguma de yeey waaw ak ci kanam ginnaaw waaw ak ci kanam ginnaaw danaa leen ñëwee ginnaaw dinaa leen ñëwee kanam thank you dégg nga sunu boroom sunu boroom gëdd iblis na ko uxruj minha maduuman madxuuran la man tabiaka minhum la am la an naja gëdd iblis ci boppam na ko génnal nga doon ko ñu dàqu nga doon ko torox ci la sunu boroom waat ne danaa feesal sawar ci iblis mi ak képp koo xamante ni topp nga ko képp ku topp iblis ak jëmmi iblis ci boppam lay feesalee sawara yàlla nañ ci borom bi tabaaraka wa taala musal moom iblis moom yi borom bi tabaaraka wa taala kàttanal ko mu mënal doomu aadama bi lépp nag mu mën kaa jaare fu ne tànn ko wax. loolu la loolu la ñaan yàlla. dégg nga. Iblis manal doomu aadama bi lu ne. dégg nga mën a jaar ci deretam carrément dugg ci yaram wi mën a dugg ci xolam di ko jax-jaxal ak lépp loolu lii mu mën nag moo tax sunu borom ne ko léegi wa iz qulna nu mu ko waxee ci sootul Isra قال أسجد لمن خلقت تينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم ما شاء الله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصدقك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد معهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا نعم، نعم، ربي ربي رجلي ربي yeah. ربي رجلي فلما كرمت علي لا إلى لا إلى خرتني لا إلى يوم القيامة أختني كن نزلي أم يا عم ترى يا عم يا نعم يا الله ميمة فبعزتك ربي فأنزلني ربي فبما أغويتني مسألة نعم. لسنا برا مكدو نعمل ريح كسانة Okay, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Oh, okay. Masha Allah, su ma noppee après waaw insha allah léegi sunu borom na wax iblis na ko sunu borom tabaaraka wa taala wax iblis alayhi laanatullah ne ko defal loo man loo man ci doomu aadama yi rek defal loo xam-xam boo am jëfiñu ko bu la neexee bokkal ak ñoom seeni lekk dégg nga bokkal ak ñoom seeni kër del tëddandoo ak ñoom del juganoo ak ñoom del lekkanoo ko naananoo ak juganoo loo man defal waaye yow loolu nga nar def yëpp du la jëriñ dara parce que teema tàbbal la sawar te su ma tàbbalee sawar ni nga ko war a yëgee noonu nga koy yëgee fi <laughs> yaa nuñu yàlla tàbbal àjjana rek ba ëllëg moo mën a feeñu iblis na ko yow léegi yow yi nga doon def li mu la jëriñ <laughs> léegi yow ni nga doon léegi lu la jëlee woon yow fexe nga yow ñii nga dugg aw soor ne léegi après nag lan la. ndax ndax teel na laa yëg soor bu ne. moom moom bu ñëpp duggal sawar yi du ko téye yëg sawaram nu mu ko war a yëgee. muy kii maanaam yal nañu yàlla musal ci pexem. waaw sunu borom wax ko loolu. na ko defal loo man waaw du tee. yow de ma ta ma boole leen yéen ñëpp tàbbal. سوارا سنو borom كونتنا di ñuy nettali ba tey ne wa qulna ya aadamu uskun anta وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما نبوس فوف léegi ba nga xamante ne borom bi tabaare ko wa la génnee na génnee na iblis aljana fab aadama tàbbal aljanna fab aadama tàbbal aljanna ñu wax ne keroog seen maam aadama daa xaw a wéet nag daa xaw daa xaw a wéet loo ni yëg ak wéetaange ci boppam léegi sunu borom daal di koy xëpp ak ngamint mu nelaw ba mu nelawee xamna nalaw nelaw yu neex sunu borom wekki ben far ci ay faram dadi fop ndawal rampere wuutalee ko far gi mu jël faar googi mu jël nak ci la bind sunu mam hawa alayha salam le la mo moo taxoon bi sallallahu alayhi wa sallam ne ngeen ne waxoon ne léegi jigéen ci ak far lañ ko bindi ta far mom maanaam boo ko dee géem jubal mën nga kaa dem fam boo ko dee géem jubal mën nga kaa dem dégg boo ko nu mu ko boo ko dee boo mi ngi noonu waaw mi ngi noonu kon loolu moo taxoon yonent bi wax xadis boobu sunu maam aadama sunu maam aadama yeewu gis soxna ci tok ci wetam sunu mam adam yewu gis soxna ci tok ci wetam waaw donga ma lool rafet léegi sunu mam adam laaj ko ne ko yow yaay kan mu ne ko man day as soxna la so xamante ne yàlla daf ma bind ngir ngay dalale sa xel ci man ngir ngay dalale sa xel ci man mom lay sunu bono dox ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin waxida وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حمل لاجي سنو برام وقت سنو آدم نلين أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث سئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين موي دا وقت سنو آدم أكسخنا نلين لين في الجنه dëkk leen ci aljana yow aadama dëkkal aljana ak sa soxna mboolem li fi nekk ay xeeti taraanga rek mën ngeen kaay jëfandikoo mu mel ne yàlla daf leen a na lépp ñu sañ jëfandikoo waaye nag ba mu des benn garab ne leen léegi bu leen jege garab gii wala taqraba su boobaa de dangeen bokk ci way tooñ yi su boobaa da ngeen bokk ci tooñkat yi hmm? ci lay ñëw nii léegi nag garab googi wuute dafa am ay wuute sayduna ali ibn abi talib karamallahu waja moom daa wax ne garab gi garabu kaafuur la kaafuur qataada radiallahu anhu wax ne garab gi moom garabu xam-xam la nii rek garab gi garabu garabu xam-xam la garabu xam-xam la léegi mu mel ne ndigal loolu yi suñu boroom digal leen rek te mooy garab googu yi bu leen ko daje bu leen ko jege asmaak di ci lekk iblis kontaan lool nii ne comme suñu borom te tere na leen dara rek kon naa gaaw përifitoo yàq leen pour man leen a génne àjjana comme man ni ñu ma génnee comme man ni ma génne génnee àjjana iblis daf ko occasion lool kontaan lool nii alayhi laanatullah am na différence ak aljanna bi ñii ba mu ndax àjjana jooju ak àjjana suñu moom aadama. yàlla dig jàll buñ foto ndax benn ah, léegi fu ma yemoon sax waaw waaw léegi mu mel ne léegi Iblis dafa def occasion loolu daf kaa daf kaa def occasion loolu nii ne comme que léegi tere nañ leen dara rek naa gaaw yàqal leen pour ñu mën a yam ak man pour ñu mën a yam ak man Iblis nan la defaat ginnaaw bi ba mën a tàbbi aljanna lu matawoo xam la nii génnoon na àjjana ba ci yàgg mu duggaat aljana carrément ba mën a yàqal suñu maam aadama alayhi salaam <laughs> aywa ana nu mu koy defee wax nañu ne iblis si boppam dafa bëggoon a dafa bëggoon a ñaaj carrément dugg te àjjan dafa ay bëkk néeg bëkk néeg yi nag ridwaan alayhi salaam mooy pat mooy seex bi waaye am na ñeneen ñu koy bëkk néeg yi ñu bokk teg ridwaan moom mii iblis ba mu bëggee ñaaj ne day dugg àjjana am benn bëkk néeg bu ko dogala bu ko dogaane ko déedéet doo doo fi dugg doo fi dugg mukk waaye ni mu def ginnaaw bi mooy xam nga ne dañuy wax ne aljana dafa am ay jaan yi ay jaan yoo xam jaan yu rafet lañu waaye nag doon nañu jaan yoo xam dañuy lore iblis ñëwal benn jaan joo xamante ne jaan ju rafet la lool nii bokk itam ci ñiy bëkk néeg aljana yaa bokk ci bëkk néeg aljana yi dégg nga Iblis Iblis moom itam ñu wax na léegi dafa amoon xarit bu jigéen nii dafa amoon benn xarit bu jigéen. ci lii du seytaane non non non du seytaane kii de moom kii moom moom benn xarit bu jigéen la Iblis amoon nii rek léegi Iblis laaj laaj ndaw si ngir mu tàbbal ko aljanna ndaw si ne ko nan laa koy defe te bëkk néegi bëkk néegi aljana bëkk néegi aljana yaa ngi nii taxaw yow nan laa lay dugg nan laa lay nan lay ànd yow carrément romb leen romb leen waaw kii leen kii na ànd yow dugg aljana loolu moom mu dul nekk dégg nga ñu wax ne léegi iblis ndaw si ndaw si book na ko léegi non non astafurlah ñoo xam ne léegi iblis dafa dafa taxawaat ci buntu àjjana léegi taxawaat fa di xaar daal wax nañ ne taxaw na ci buntu àjjana di xaar lu tolloog ñetti téeméeri at ngir rek bëgg mën a dugg ba mën a ba mën a génnee suñu am aadama dégg nga ndaw si waxee yegg mu dem waaye déedéet dafa taxaw ci buntu àjjana carrément dégg nga sonnut benn ngir mën ngir rek am accès ba mën dugg am na fu suñu borom waxee ne wa iz qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama illa iblis kaana mina al jinni mu leer foofu xam nga bu doonoon malaayika man jàpp ma ne malaayika dana mooy yàlla ndax li yàlla wax laa yow ah nga man duma jinde fu mu ne dangay dem laaj ko jinde xam nga moom loolu la ñaan yàlla yàlla may ko waaw waaw waaw enfant ah, léegi fan laa yemoon ok léegi ne iblis mi ngi taxaw ci buntu àjjana di xaar di xaar xaar xaar na fa lu tolloo ñetti téeméer at rek ngir bëgg ngir gën a ngir bëgg a dugg léegi yàlla dogal am benn picc mu ñu wax toowuus too toowuus ci picc àjjana yi ci picc aljanna yi la ci picc aljanna yi la ba mu génnee iblis iblis xam nga daa bari pexe woo ko ne ko xoola ni mu ko woowee yow mbindeef mu tedd mi ngir di ko jay daal ngir bëgg am ngir bëgg am lim ngir bëgg am lim bëgg daal na ko yow mbindeef mu tedd mi dégg nga yow la kan yow la kan man day mosumaa gis ku la gën a rafet moom iblis may wax picc mi loolu de ngir rek maanaam picc ngir bëgg picc mi defal ko li mu bëgg mosumaa gis ku la gën a jongama ku la gën a rafet picc mi ne ko man day ab picc laa ci picc àddina yi joo xamante ne sama tur mooy toowus toowus laa tudd ab picc laa nii rek ci picc àddina yi iblis jooy toowus na ko yow la kan ak lu la jooyloo iblis na ko man day ab malaayika laa <laughs> iblis na ko ab malaayika laa ci malaayika yi kuréel yu ne yi léegi nag li ma tax a jooy mooy yow dama lay yërëm mooy na yow léegi damaa xam ne ba tey rek matagoo daal li tax ma ne la matagoo mooy yow bis dana ñëw nga dee yow nga al ko maanaam xéewal gi nga nekk nii bis dana ñëw nga jóge ci xam nga bu deewee rek dootu amat dootu nekkati ci xéewal dégg nga ibli taawus na ko léegi no iblis ne ko te man xam naa garab goo xamante ne garabug sax la mu ngi koy junj garab gi suñu maam gi mi ngi koy junj mu ngi koy junj garab gi ñu tere suñu maam aadama de léegi wax na ko man léegi man xam naa garab ci aljanna joo xamante ne boo ko lekkee dangay sax yow doo faatu doo faatu taawus ne ko garab googu ana fu mu nekke fan la nekke iblis ne ko déet duma la mën a tegtal fu mu nekk lu dul ne danga ma duggal yow aljanna lu danga ma tàbbal aljanna iblis lii taxu kaa jug de ak laytaale ngir ngir laytaal li muy jaar ba mën a àgg ci sunu maam aadama taawus na ko déet man awma kàttanu tàbbala aljanna di moom ma kàttanu aljana tàbbal la aljana te même su ma ko amoon sax yow ridwaan a ngi nii taxaw nan laay nan laa lay dugalee aljana di ko romb moom mënumaa romb ridwaan taxaw di la tàbbal aljana li ciy pexe loolu moom mënul nekk mënuma ko waaye nag picc mi ne ko léegi li li ma xalaat comme pexe daal mën naa laa tegtal benn mbindeef ci mbindeefi yàlla yi koo xamante ne njortu naa ne moom yaakaar naa war naa am man war naa am pexe ngir tàbbala aljana iblis na ko mbindeef moom man mbindeef la iblis na ko ak jaan jaan ji yi ma lay wax na ñàkkul xëy na moom dina la mën a tàbbal aljanna léegi picc mi dem ca jaan ja xibaar ko la ko iblis wax la ko iblis wax nan la mooy xam naa ca aljanna garab goo xamante ni ku ca lekk doo faat dangay sax daal da sax dégg ba mu ko waxee lool yi jaan ji ñëw iblis wax ko lu melne ne lam wax picc ma léegi janji ji yow fu mu la bëggoon duggal dugal nan laay def ba duggal la mu ne ko loolu yomb la te moy damay def sama bop ngelaw dugg yow ci sa jimiñ après nga gëq al janna picc mi nangul ko loli mi muy mi ji muy asax mhm. muy jaan mhm. ba mu na picc mi janji jaan bam duggé ba duggé ni dafa daal di yooxu woo ak tuskareem ne yaa way woo naa sama tuskare man ma jaamu yàlla xam nga ni iblis wax nañ ne mënoo def nii ci kaw suuf te su jootu fa jaamu fa yàlla bërëb yépp jaam na fa borom bi tabaaraka wa taala dégg nga mu xalaat ne man nangami junni at ma jaamu ko yàlla yàlla tàbbali ma àjjana kii ma mbërki dem ma njaay lañ ko sàkk tàbbal ko àjjana ak iñaan jàpp ko nag èèyàn lọ́ọ̀ ni soof lool léegi ba mu génnee ci la wax ak sunu maam aadama alayhi salaam fexe ba àgg ci sunu maam aadama alayhi salaatu wassalaam ne ko ni ko alquran alxuraan ti sax fa waswasa lahuma shaytaanu li yubdiya lahuma ma wuuriya anhuma min sawaatihima وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناسحين فدلاهما بغرور لاجي دا فاي نيو دي وقتان اك ادم دي وقتان اك مام بار نانك نانك تي نوكو لين ريك مام تاخو ديكوندي خمال لا نلا غرب جي لا سونو ايه dara taxul mu aaya la ko lu dul ne dafa bëgg nga doon ay malaayika <laughs> dafa xam ne boo ko lekkee da ngay doon yi malaayika dégg nga aadama jàmm na aadama gis ne comme malaayika ak gën a garaaw dégg nga ndax ah, malaayika day naaw ko jëm fu ko fu ko soob di yéeg a ko wàcc xam naa loolu moo tax daal mu waxi iblis di dugg ko dégg nga iblis continuer di wax ak ñoom ba waat ci yàlla ne dama leen di laabiri iblis xam nga iblis ku ñeme yalla la da ko man xomu da ka ñame xomu da ka yeb manam di wat ci yalla lo xamante ne yow li nga wax ni du deug mu wat ci yalla ne man dama leen di laabiri quoi mu wat ci yalla man dama leen di laabiri garab gii li tax suñu borom ay leen ko dul dara lu dul ne bu wen ka lekkee ay malaika la ngeen ni doon motax ma bëgg ngeen barkelu ci deng wax nañu ne sax sunu maam aadama moom mi ngi doon insister waaye xawwaa ci boppam moo fexe ba <laughs> mbokk jigéen ñi ku leen moy <laughs> eh, tuuti moo fexe ba moo fexe ba aadama ci boppam lekk ci lekk ci garab gi. waaw waaw. dégg nga léegi am nañu wax ne sax euh, sunu maam aadama sunu maam xawaa boog dakaa nànnal am nañu wax loolu daka nànnal sàngara xam nga maanaam bu sunu maam aadama mànnee rek xam nga nit ki bu mànnee dootul ànd ak sagoom dégg nga moom xawaa mu lekk ca garab ga aadama it lekk ca garab ga moo taxoon yonent bi wax xadis bi ne alxamru majmaul xabaais wa ummu dunub sàngara day mooy moo boole yu bon yépp te itam mooy ndey bàkkaar yi moom sàngara ndax nit ki bu xasee màndi rek dootul teg sagoom léegi iblis ba nga xamante ne fexe na ba <coughs> fexe na ba fexe na ba sunu maam aadama lekk ca garab ga ak sunu maam xawaa dégg nga ñu wax na ca saase seeni awra daa commencé feeñ te fekk na li ko jiitu sunu maam aadama ak sunu maam xawwa yàlla dafa leen a defaloon sutura nga xam ne te ne kenn du kenn kenn kenn munta gis awray boppam bay gis awray keneen bay gis awray moromam waaye dañoo lekk te garab gi rek mu mel ne léegi sutura gi leen yàlla defaloon dafa daal di wuñ wuñ waaw dafa daal di xaaweeku ni ndeysaan ku nekk di gis awray moromam ci lañ daal di commencé for nag ci xobi aljana yi ndeysaan waa di di di di taf léegi nag léegi nag ba muy léegi ba ñuy ba ñuy taf seen yaram yi noonu tee leen suñu borom woo ne leen alam anhakuma an tilkuma sajara wa aqul lakuma inna shaytaana lakuma aduwu mubin xanaa aaye wu leen woon garab gi xanaa aaye wu leen koon xanaa waxuma leen woon ne seytaane seen noonu la waaye ba mu leen waxee loolu ñu gis njuumte liñ def ñu xam ne def nañ njuumte def nañ bàkkaar ñu nangu ko carrément xam nga bokkuñu ak iblis iblis mom def na bakar en même temps di gëna dëkk di gëna ki yalla da mm-hmm. di ko gëma dëkk non ay faalu mala ma tay day na ñi nak dañu def bakar nak nangu ko wala bu di ko jéggal jéggalu suñu borom na rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin denga, ñu wax suñu borom ne ko ñun day tooñ nañu suñu ta nangu nañ suñu nangu nañ suñu tooñ waaye nag yow suñu borom bu fekkente ni jégguloo ñu day te yërëmoo ñu day dañoo nar a bokk ci way perte ña te wax dëgg faal nag bëgguñoo bokk ci way perte ña bañ waxee loolu yi suñu borom saleen ay baat yoo xamante ne bañ ko waxee rek ci la leen suñu borom jéggal te mooy nim ne fa talaqa aadamu min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi innahu huwa tawaabu rahim kon defe naa mën na maa tënk foofu di ñaan borom bi tabaraka wa taala jéggal ñu bu dee ñu jéggal ñu ñum tey jéggal ñu ñum tey ak rëcc rëcc yi hada wallahu alam wa sallallahu mel ni sax bi nag na waxtaan yi ba noppi xam naa ni waxtaan bi am na solo lool te leer na. mbay li nga doon laaj laaj ko si. léegi bu ko defee dafa mel ni am na ay laaj ci fi ñu ma fi doon dégg diggante bi mu def waxtaan bi fekkee laaj yooyu dinañ koy soxla ba tey rek bisimilah sens xam naa yëgale sama. damay taxalee waaye saa yi.

جميل معترك كون الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء jërëjëf macha allah am na solo lool lool lool wax ji am na solo lool conférence bi am na solo xam-xame na jaar na yoon tey mënees na see jariñu yàlla na la yàlla dëgëral. allahumma tey am nga ay adilla qaatia xanaa li mbokk bi noonu laaj rek mu ne àjjana ñu àjjana noo ko laajee. laaj na ñaari laaj kay ak iblis moom waaw maanaam maanaam bu fekkee ne da nga ne àjjana ji ñu wàccee xam nga ñun ci suuf lañ dëkk aadama alayhi salaam shaaraawi imaam shaaraawi rek laa xam moom mu ne àjjana jooju jannatun tajribi tajribiya la tajribiya mooy loo xam ne dañ ko def pour essayer maanaam test waaye loolu lenn ci boroom xam-xam yi dañ koy néewal doole ndax dañ ne yàlla comme que ku mag la du def dara di test waaye maanaam dana dana du def dara liggéey dara di di teste ba xam loolu baax na waaye ñun nag danañuy examiner pour wan ñu ay preuve ci suñu bopp yàlla test boobu lay def pour wan ñu ay preuve ci suñu bopp ma nga xam ne ku nekk da nga xam ne ku layoog yàlla mu yay la rek yaa wàcc yoon sabat wala sabatkat yéen. Hmm? li nga doon laaj ci iblis nag naan ko ma iblis. ok àjjana jooji àjjana jooji borom xam-xam yi dañ ne mooy jannatul xuld gi nga xam ne ëllëg insha allah taala ñun ñëpp fa lañ war a dem ñun waa saal bi ñun waa daara insha allah yàlla na ko yàlla def ñeenti fan ñu koy ñaan aywa yàlla nañu ko yàlla nangu yàlla nañ dugg àjjana ñun ñëpp amiin tabarkàlla ñun waa ñun waa daara ji ak soppe yi ñi ñuy déglu ñëpp insha allah ak ñu baax ñee mbokk yi sa lañ war a jëm ëllëg àjjana joojee la aadama nekkoon aljannatu allati wuida almuttaquun àjjana ji nga xam ne moom la yàlla dël ñi nga xam ne ñooy ñi ko ragal buñ ko jaamoo te sellal ko bañ koo moy suñ faatoo ëllëg ñu dugg fa àjjana jooju yi nga xam ne moom la bakkan yépp xemmi foofee la aadama nekkoon alayhi salaam proof yi ci alquran nee na ko lu ko wax génnal xam nga nee na ko génnal uxruj nee na ko tamit ihbita nee na ko tamit ihbitu bu dee ihbita bi ñom ñaar la bu dé ihbutu shaytan daf say bok benn bi bimu ne ko génnal kon ko dafa dugg ihbutu moy wàccal avion ni muy def bu nekké ci kaw bu landing down lolu moy ihbutu kon landing down duñ koy wax faaw day nekk ci kaw bu fekkee ne dafa nekk fii lan lay def day yéeg kon la tax yàlla ne leen ihbitu ba'dukum li ba'din ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ولكم في الارض مستقر دم لين واتي لين ام غين ديستيناسيون بو خاندي بو غين ديمي فا غين دي دود اب تان دا غين فا ام توتي با نيه واي اب ديغنت لا كو دي مو جيخ كون لا تان القران نينا تا داني وون اسكن انت وزوجك الجنه فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أم فوق من فوسوس لهم فوق من فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأخرجهما كان الشيطان لقينا بقينا لنكم نقول شيخ بوخي فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو بل الشيطان في بمؤمن مؤمن بقينا لن اهبطوا فقلنا اهبطوا واتشلن ba'dukum li ba'din adu bu ngeen wàccee ba ci suuf yow aadama ak awa ak saytaane ak jaan ja yéen ñëpp ay jigéen ay ay noon ngeen di doon maanaam xuloo ko xeex ngeen di dëkkee ba yow mu xeex ba'dukum li ba'din adu jëkkër ak jabar lu ñu bëggante bëggante tojantey bopp rek muñ rek ba'dukum li ba'din adu jaan fu mu jo jekkoo doomu aadama yóbbee ko maara day taal doomu aadama fu mu gisee jaan ñaare yéen a ko yeb ci bopp surtout africain dégg nga baadukum li baadu seytaane moom du ñu mas a may jàmm waaye nag walakum fil ardi mustaqarun man ngeen am ab wàccuwaay ci suuf fil ardi wa mataaun ila kon yàlla bu ne wàcc leen rek kon dañoo yéegoon te te tey lan lañ bëgg ñun ñëpp bu ñu faatoo suñu ruuj da day yéeg ñun ñëpp lan lañuy liggéey pour yéeg kon dañuy yéeg ci àjjana dellu fa sañu maam nekkoon aadama alayhi salaam yàlla nañ ko def danañ ko def de insha allah fan yi moom xam naa fan yi ñu teral di ko ñaan am na bu ci nekk laylatul xadar la léegi beneen bi may ma tuuti beneen bi si biir wax ji nee naa leen saytaane iblis mhm. doomu aadama yu bari moo leen gën a gëm yàlla voilà voilà bàyyi leen ko mu rek da ngay da ngay maanaam. da ngay xool da ngay xool iblis. non iblis iblis benn jikko jikkoo ko sonal jikko. dafa yor ay jikko yu bon. jaamkatu yàlla bu yor ay jikko yu bon. ba yàlla yéegal ko boole ko ci malaaka yi waaye mu yor ay jikko yu bon jikko yolor ko. boo xoolee benn yoon la jàkkaarloog yàlla la mu def rëy mu jàkkaarloog yàlla face to face yàlla digal ko mu bañ. muy bi mu nee ko sujjootalal Adam. mu am liñ naan alxamat muy lan xeeb jikko bi ko njëkk a sonal mooy xeeb ndax lu mu ko wax a asjudu li man ah xalaqta tiina ndax damay sujjootal ko xam ne ci ban nii nga koy xalaqta xalaqtahu min tiin qaala asjudu li man xalaqta tiina qaala a asjudu li man xalaqta tiina ndax damay sujjootal koo xam ne si ban as mban nga wa xalaqtani min naar iblis kan moo ko xamal ne ko naar moo gën tiim moom kon dafa jàpp ne ñun suñu biir xam nga loolu day amante yow diw sàngam nga sant man nàngam laa sant ñu xeebante dañuy xeebante ci ab xeebante ci ay askan xeebante ci ay am-am xeebante ci alal dañuy xeebante loolu suñu jikko la kon loolu benn jikko la boo xam ne dafa nekk ci iblis jikko bobu na nga xamne moy xébel mom mo moo sonal iblis ci la amé tort xébel parce que xébel moko yobé reuy xébel moko yobbo rejeter digalal borom bi subhanahu wa taala ba mu rejeter nak ba xamne yàlla dak nako mu ne comme que yaqulena nak ki ma tax yàqule duma ko ci baye léegi xaaral léegi nag moom ginnaaw bi nga xamee na nag léegi topp na doomu aadama xoolal saa buy laaj yàlla dara danaan ko rabbi fa bi maa axwaytani rabbi fa bi izzatika rabbi anzirni bàyyi ma yegg rek neen summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an imaanihim wa an shimaa'ilihim wa laa tajidu aktharahum shaakiriin gis nga ni yéene dane ko sa gars yi duma leen bàyyi duma leen bàyyi ñoom ñëpp safara waaye nag am na ñoo xam ne moom xam naa ne ñoŋal nga leen ba dox illa abadaka minhum al muxlasin waaye ñun nit ñun nit neen ko wax ñun moom yes am na am na am na benn boroom xam-xam bu mag boo xam bind na ab téere di di di maanaam di di kii Iblis maanaam di ko défendre donte man défendre ma ko ab saay-saay la bu bon waaye nag damaa bëgg a wax ne caay-caay gi mu def nit ñaa ngi def ba ko gën a pire man loolu laa gis man. mais moom ci wàllu. waaw am na am na. yàlla kay yàlla kay gis seen moom la. loo loo bëgg a wax Mbaye. waaw deuxième question. Ridwan. nan lay moom nan habilité bu mu am ba duggaat aljana suñu borom di ko seetaan Ridwan mu gis dara suñu borom daal di koy seetaanaat encore. daal di ñu bàyyi xam nga li muy xam nga xam nga xam nga yàlla moom yàlla yàlla logique li ngay jot a xam yow yaa ci sa logique. ak ci sa xam nga yàlla desu ko kii de. mais yàlla logique yàlla su ko neexee ëllëg nit ñi di ko yomal xiyaam. des fois suñu borom day day day wax ah. hmm. ma dégg des nga ne yàlla daa waroon a def nangam. exemple loolu terme boobu lañ koy bañ xëy na léeg-léeg rëccite doon yàlla moom dara waru ko. comme yóbbuwoon ñu benn continent rek gi tàq ñoom iblis iblis nekk foofu bàyyi ñu man man jàpp naa ne sax doomu aadama am na ay caay-caayu boppam yoo xam ne xataa man bu nekkutoon iblis sax ndax xoolal weeru koor bi soxna si bis seet mi may laaj mhm. naa ma man gis naa ne iblis dañ koy jéngu weeru koor bi ba noppi terewul ni ñaa ngi def lu bon kon bu fekkee ne iblis yàlla dox na suñu digganteeg moom ci weeru koor bi te tëriwul ñun ñi ngi def lu bon kon ñun am nañ ci ñu caay-caay bopp de ndax doomu aadama ñeenti noonu la am na benn noon bi fi mu ne nii liggéeyu de muy shaytaan an nafsu wa an nafsu wa shaytaan wala waaw moom jéng nañ ko ok léegi ana suñuy bànneex doomu aadama dana topp bànneexam dong ba mu jaral ko lépp jaral ko sacrifier famille bi yépp seen nga gis ko koo xam ne bànneexam bëgg am am bëgg àdduna jaral na ko joxe sax poojub doomam waaw sacrifice ndaw daaw ñaata yoon ko gis moo xew léegi pour am alal waaw gis nga gis nga pour te pour te dire maanaam seytaane fi mu gën a noppaloo daanaka mooy dëkk yu mel nii waaye nag liggéeyam yooyu yëpp daf koy jëlaat nag indi ko ci lu mel na daara ci lu mel na daara ji fi mu toll gis nga li ñu fiy jàng-jàng alxuraan seytaan ni ki nga xamee ni ci ñun suñu biir da ngay gis ñoo xam ne dañuy jàng alxuraan di jàng xasaay di zikkar di def lépp waaye ay yàqkat lañ am na ci seytaane yoo xam ne noonu lañ mel ay seytaane jàkk la ñu doon ñoo gën a naqaree xeex nag ndax jat boo indi miin nañ ko waaye suuratu yaasin moom du leen duñ du leen mas a rëcc suuratu yaasin moom duñ ko mas a moo tax ma digaloon leen di ko jàng ci daara sëñ daara yépp dañuy jàng suuratu yaasin lu bare bare bari ci seen daara yi ak suuratul baqara guddi gu jot am na saytaane jàkk ak saytaane daara du saytaane julli am na xansab lan moo tax saytaane julli am nga taxaw ne allahu akbar xansab dikk naa la eh dafa am saytaane duus man daal des fois des fois li may li ma gisee kii mbir mi première bi daal maam ab maam test la. test la xoolal. mbaay àdduna bi test la. mbaay de moom yàlla أكبر wor xumu wor وخير وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته sadaqallahu aziim gis nga yii moo ñu solo test bii nag si la ñuy mbëkkantee ba defante lu bon gis nga yàlla bu ñu àttewul sax ci lim ñu sant lim ñu sant nga xam ne moom nga xam ne amu ci solo dañu ko sant rek te yaakaar naa ne solo su tax mu ëpp ñu sant ñu ko pour ñu bañ a ñàkk si ñu yàlla bis mas naa ne si ñu yàlla ñu ne mooy la ba ma leeral leeralal leen ñu bañ a yàq ñàkk suñu yàlla sëñ bi moom ko doon bay bay ki nii maanaam waaye li ëppal solo yàlla ci ñun mooy suñuy jikko ndax bu ñu tooñantee suñ fàllu mi bu ma ko defee lu metti da ko yëg mais yàlla ku ko mën def lu metti bàyyi julli bàyyi woor te créer organisation yu gën a against Allah what you can harm Allah you can harm nothing you never touch Allah ah si moom lay metti xam nga temps am na yëngu yu jóg senegal lu nekk fa lay xewee mm-hmm. wane yàlla waa xool leen wane yàlla exemple wane yàlla mm-hmm. ñaata kiiraay moo dox sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala gisoo si benn benn rek yow mënoo koo wane benn benn kiiraay bu dox sa diggante yàlla ne da ngay wane jëmmi yàlla képp ku toog ne day wane yàlla waxu dëgg eh. dégg كتور ندي وانا يالا وغلدك وانا يالا كي لتح قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله جعله دكا jaalahu dakkan wa xarra Muusa sa'iqa kan moo waxoon loolu soxna Anta kan moo ne woon yàlla dama laa bëgg a gis xam naa Muusa Muusa lu mu doonoon am yónnante nga gis benn waay boo xam ne dégg mel na Abdou Samane Mbaye toog fële na damay wane yàlla kaa ma wan leen yàlla ñetti guddi ma wan la yàlla ñu yóbbu sam xel jox la lu ne nga naan ba doo bi nekk tàmbalee gis ay biddiw ba ca naan yàllaa ngi nii hmm? waaw Musa bu fekkoon ne is gonna be good enough to strong to meet Allah and see Allah Musa moo ca gënoon a yee te Musa ba mu nee yàlla dama laa bëgg a gis yàlla dana ko neen teg comme que nee nga danga maa bëgg a gis ma ne flèche su ma nee flèche montagne yi bu tëjut rek nga xam bu boobaa nga laa jaar yàlla ne flèche montagne yëpp tasaaroo dem naa ci montagne yooyu yee gis naa ko ca Égypte waaw ca Égypte fa loolu xewoon dem naa fa dañoo tasaaroo fekkatoo tojatoo bu nekk dem fële ci diggante Égypte ak Israël la nekk leer te ak ak leer rek kon nga toog naan da ngay wane yàlla képp ku toog naan day wane yàlla surtout si jamonoy tey jii mu Musaylamatul Kazzaab sax ko gën a mën a wax dëgg wax wax surtout si jamono tay bii ah bu tabarkàlla bu ma kenn laaj tuuru di wër nangam nangam nag maanaam dama ne jamono tay bii képp ku toog naan damay wane yàlla Musaylamatul Kazzaab moo gën a wax dëgg waaw ah, du du kenn wane fi yàlla yàlla moom dangay jaamu yàlla aw ci njub di dox ci njub ak di dox ci li ñu ko waxeeti woon dañ ne di dox ci njub ak aw ndigal xaw damay damay gaaw a fàtte léeg-léeg waaye waxi wolof la la mu jublu mooy nga aw ci li la yàlla digal moo gën fopp maanaam di toog naan da ngay bu da dangay wanee leer rek da joxe ay tiri jinneeg da ngay tay joxe lii nangam nangam fexe bi yow li la yàlla digal nga def ko nga aw ci am jub moo gën fopp. waaye yow gëmoo ko baax ah wala taziru waasiratun wisra uxra day xalaat ci yàlla quoi di wala taziru waasiratun wisra uxra gis nga bada ak diinu xoriban wasayawduka ma bada gis nga àdduna bi gis nga toujours la minoritaire xawma ni kii ñi gën a tuuti majoritaire bi du ñàkk ñi gën toujours de man ngaa nekk fii ñëpp xuloo ak yow nga am benn dëkk sa dëgg boobu rekk di dëgg nga wéet ca nga gis ne yaa nekk ci dëgg nga ànd àdduna bi lépp noonu la mel comme que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na woon yowmal xiyaam balaa muy tukki da gis sama mbooloo yi danañ séddali ko juróom-ñaar fukki kuréel ak juróom kenn ku nekk ne ci àjjana la taxaw te ñoom ñëpp safar lañ jëm kenn ku nekk ne nag maa ca nekk fi mu toll ku ñaata kenn ku nekk ne man maa nekk ci bu am na kuréel goo xam ne dañuy taxaw moom na ñun dong ñoo nekk ci baax bi ñi ci des ñëpp safara lañ jëm nga xam ne dañ cay boole borom maxtu yaag borom mbaxana yu xonq yaag dégg nga ñëpp la ñuy boole ñëpp kulluhum fi naar ba mu des ñun kenn moo sañoo wax loolu waaye nag yonent bi nee na am na si mu jëntalu jamono dana am kuréel bu dëgër bu strong boo xam ne nit ñi lu ñu juyoo juyoo lu ñu wuutale wuutale ñoom ñoom duñ déglu nit ñi dañuy nekk ci dëgg rek yàlla na ñu ko yàlla defal aha coowal weeru koor weeru koor yi te tàmbaleeti na ku am dëgg yàlla rek am dëgg ndax dëgg moom benn la mbaay li ma doon wax ci iblis noonu waaw mu ne seetaan bi iblis yàlla iblis dafa ñaanee yàlla fuñ ko mënta ñaanee ñun te buñ ko fa jiitu woon ñaan ko fa lu mu fa dul ñaanati dafa jàkkaarloog yàlla ci pays boo xam ne moo gën a foor ci yàlla muy fam wàqanteeg moom xam nga yàlla moom ku taxaw moom moom si fu fa muy waxee foo foor na mu ne ko fa am zër nii ilaa yawmi yub'athun xaare ma bu ma rey bàyyi ma fi ba noppi ne ko fa bi izzatika maa ngi ci sa màgg nga kon la ughwiyannahum ajma'in illaa ibadaka minhumul muxlasin léegi nag comme que dafa ñaan yàlla ne ko bàyyi ma fi rek muy gudd fan yàlla dana ko may yàlla iblis ñaar lay guddee fan ñaar moom ci boppam déewagut ba noppi dafa am tana maam euh, tanaasul bu gaaw muy muy njaboot dafa bari doom fu doomu aadama juree benn mu jur fa fukk dégg nga moo tax dañ ñoo gaw su guddi jotee ñu woote benn ensemble chaque guddi ci kawam ndox am na sax ñoo xam ne wax nañ ne barab ba barab sàngam la fii ci boor yi euh, kii nu mu tuddati euh, réew yi espagnol yi am na ñu ne foofu la waaye yàlla rek xam. mu toog fa bu ko toogee di yónnee ay saraya ni ko yónnee bi sallallahu alayhi wa sallam wax ay ndaw di leen yónni naa leen dem leen yàq te dikk wax ma li ngeen def. Mm-hmm. njaaxum lu nekk nag danañ dikk ne ko maam ñun de fex nañ ba diw def naa nangam rey nit yàlla naa ak nangam. Mm-hmm. ku wax ma ne ah loolu de bis ma am fi loolu moom jaaxlu ma. ma leen sant nii. dégg nga waaye bu kenn dikkee da ko ah man de fexe naa ba diw fasa jabaram mu ne ko kaay kaay kaay nga ne lan waxaat ko mu ne ko fexe naa ba diw diw fasa jabaram mu génn guur ak saytaane daal di ko koy jox ne ko yow mii nag yaay moom fonk leen seen sëy yi. lu tax maanaam iblis loolu gënal ko tas sëy nii. aha parce que li si mën a yàqoo ci. Madame, euh, iblis bu fekkone quoi day wut gas fondement pour installer pour yak, moy c'est bu tas na ci limi dana tax ku qui ki limu xamone muñ dana ko bëgg su dana may ku dana tax la xamone xamoon muñ dana ko wuti te ñaar ku ci def def iblis ben. beneen bi mooy dana fexe ba comme que miinante nañ su ko mënee ñi nekk di di di dajee di mooy yàlla loolu bokk na ci la ko gënal wala mu leen di topp di leen ko defloo di leen ko defloo kenn mu xewee tey juróom-ñaari passé ci benn sëy continuer sëy loolu moo xew tey wallaahi si lu am la ba fukk sax continuer sëy te li si gën a yéeme sax li tax mu gën a naqaree dindi sëy yu mel noonu soo leen waxee ñu ne ah sëñ diw ka def na ko waaye fu ñu fu sëy sëñ diw ko def na ko fu ñu jëm sëñ sëy diw def na ko wala diw def na ko waaye am na bon di diw loo si man loo si man sariya bi yàq nañ ko bokk na ci li nga xam ne moo tax Iblis bëgg ko doom yi dañuy tasaaroo éducation day jafe parce que toujours conflict day am day mel ne diggante ñaari fan famille kii naan sama doom yi kii naan sama doom nga xam ne bala ngeen mën a awale fenn seen doom toujours da ngeen di def arrangement surtout fii moom surtout fii moom. fii moom boo moytuwul da ngay dem ba koot koot wax leen doom ji ci kan lay féete saar day ci kan lay féete sànday bi ci kan lay nekk nan nga ko war a yore lan nga ko war a jox fii moom fi la raay bi téeree dégg nga beneen bi mooy doom yooyu en général surtout bu ñu dee ay xale yu jigéen day jafe yar leen ci seen ndey day jafe yar leen ci seen baay te yar bi gën mooy gestu ne papa gestu ne yaay bu la yaay dàqajee nga dem ci papa papa rek la bu la papa mere nga daw ci yaay yaay waxtaan ak yow mooy yar bi gën waaye bu fekkee ne kenn na yar bu mu ci man di doon baaxu ndax ya jigéen bu ñu koy yar dafa am loo xam ne góor dong moo ko mën a def ci moom te benn góor jugut bu dégg ngeen wax bi jigéen buñ koy yar dafa am yariñ boo xam ne góor dong moo ko mën a def ci moom te benn góor jubut bu dul bàyyam mm-hmm. ah li ma wax gàtt na waaye ak euh, kii duuf la de naa nga leeral ko non dama ne benn góor jubul bu dul sa papa mooy bul wóolu benn góor ah. ba ci ustaas bi lay jàngal man foofu laay waxee de bul wóolu benn góor ci sa bopp mhm. fiiral ci sa bopp fiir jikko yàlla la jikko yónnante bi jikkoy lislaam la mhm. sa papa nag moom sa papa la moom moom rek moo mën a yegg yow fenn fi wax la loo xam ne dëgg lay doon ba ñaata góor ñoo dikk di wax ci xale bu jigéen dama laa bëgg sa diine damaa neex am na ñoo xam ne suñuy rëbb xale bu jigéen dañuy dem ci barab bi diine ye ñi solub koppati di julli neexal baat yorub téere fekk dañuy rëbb rek bis buñ jàppee rek raar yéen ngi may déggam su ko defee beneen bi góor it noonu la mel góor it bi ñu koy yar yaay rek moo ko mën a dimbale moo ko mën a teggil yenn coono am na ci côté boo xam ne buñ nekkee ñoom ñaar nag day complété léegi nag bu ko boobaa nax yi nga xam ne moom lañu nax jigéen ji exemple bu fekkee ne papaam génnewu ko ci kon mën naa nekk aw yoon buñ ko naxee benn yoon ñaari yoon rek wala ayaasu billah yéen ngi fàttaliku histoire ka histoire college student boobu ma leen fi joxoon duma ko nettali waat tey dama yow kii sooy yéen a ngi may dégg kon am benn protection Bad protection she need both sides she not the, she need she need the mother and she need the father mm-hmm. ok Wow. Con loolu lu lu am lu am solo la donte nag nekkul ne toujours mooy la am beneen bi mooy xale yi bu ñu demee ba màgg danañ am psychologiquement problème boo xam ne ak lu ñu yew yewu ak lu ñu succès succès dana am lu nekk ci ñoom loo xam ne daal bu fekkoon ne dunduñu woon loolu ci la doon gën a baax. ci la doon gën a baax ci ñoom da ngay gis ne même même jaara ci ginnaaw même doom yi mel noonu bu fekkee ne tey dañoo nekk ay guide nekk ay leadership. jàppal ne soo gisee ne ñu ngi dox cent pour cent jàppal ne 85 pour cent la ñuy dox mais mais bu fekkoon ne loolu jaaru fa woon kon doon nañ gën a mën a réussir. ndax seeni calcul day bari beneen bi surtout ñun nga xam ne bu boobaa mooy ñaari famille day daal di am da ngay gis ne maanaam euh, ñaare duñ juboo ndax bu fekkee ne yaay ji dafa dem ak keneen papa ji dem a keneen da ngay gis ne famille bi day yokk bu ko defee kii nga xam ne da dafa am ay doom day en général duñ juboo mm-hmm. moom jubóog doomu bàyyi sax mooy gën a yomb te te euh, kii li nga xam ne mooy nekk euh, xatt bi dox seen diggante pour ñu bañ a mooy rek bokkuñu papa parce que léeg-léeg yaay yi tamit il faut dañuy def différence danañ mas a mer daan ne ah daal di wax papa ji daan ne wax waxin boo xam ne xale yi danañ si déggee ne xëy na kay dafay ëpp yërmaande te jigéen moom loolu la ko yàlla ba ba bindee saa bu meree rek daal di xalaat su xale bee daal di tagg ku njëkk ko defee nag loolu dana am donte loolu mënoon naa jur sax weneen waxtaan waaye dama doon euh, barkeelu ci waxi Cheikh Abdul Qadir ji rek waaw waaw bismillah waaw ko nangu jikko ji fi ñu ko nekkul ne bépp jikko ci aadama lañ ko delloo aadama tamit dañ koy dañ koy tooñ maanaam uh, yar man toujours rek damay delloo yar xam nga am na xale bu may jàngal mm-hmm. da ngay gis ne six ans la am mais da gis ne kii ak rëy dafa nekk ci moom maanaam gis nga rëy xam nga fan lañ koy njëkk a xàmmee ci ndaw kaay ma wax leen ko bu nekkee ab liir di nàmp gis nga yaay yi am xel foofu nañuy njëkkee xame seen doom te mooy njëkk bi ñu jikko jik jikko bi njëkk a feeñ ci doomu aadama mooy rëy wala woyof da koy xale mën na koo judduwaale waaye saa buñ ko ba muy nàmp laa wax de ba muy nàmp ci réaction yi muy def fa nga koy njëkk a xamee rëy nag soo ko defee dangay rëy for everything da ngay rëy sax ba sa diggante ak sa borom xam nga ah euh, iblis mi ñuy jàngat nii nga xam ne rëy yàlla sax moo ne ko dangaa rëy am kunta minal aalina yàlla xam ne ne bokkul ci aalina mais minal mustakbirin kon léegi rëy jikko la mais rëy moo ko yàqal aleykum salaam jasakumullah xeyr rëy ko yàqal ba li ko sama borom doon sant nanguwu koo def mhm. dégg nga rëy day tax doo man a jaamu borom bi manam reuy xam nga waxtaan bi yëpp bi sëñ Abdou doon def man bi may toogee di ko analyser damay xalaat bu mu jàng ma ne lii daal li ñu si jàngee mooy nangu kilifteef ndax yàlla boo ñëpp yàlla dañ koy dond ci ay jikko même turam yi dañ koy dond waat ci ay jikko nangu kilifteef gis nga Baye Baye Moustapha mii bu fekkoon ne bi mu fi nekkee ba léegi lu ma xalaatal ma bañ jaar fële kon léegi nit bu nañ ma bu yàgg mais dama damay nangu mu nekk sama kilifa dama nangu mu nekk sama kilifa. dégg nga. mën dooy njaay nii ñoom ñëpp di samay kilifa ma leen di déggal kon ana kilifa nday ak baay ana kilifa ki lay jàngal ana kilifa jëkkër kon jikko ji léeg-léeg danañ ko judduwaale beneen bi mooy nit kuy juddu nee nañ seytaane day profitoo laal ko pikiir ko même sëriñ bi radiyallahu am na kenn ci njabootam koo bi ñu ko joxaatee waajuram dane bunt yi nga xam ne ca la seytaane mën a jaar ba yàqal doomu aadama moom laa doon fatt ci moom xaaral bañ jël si la yaa ngi may kon seytaane day profitoo bokk na yit ci li nga xam ne moom la gën a bëgg parce que nit bu rëyee léppam yàqu na da ngay rëy ci liggéey ba rëy ci njàng ma rëy ci dëglu te boo rëyee sa cër yëpp dañuy rëy yow mi rëy buy dox da ngay gis muy jàngal ki rëy buy nangu dara da gis ne benn loxo lay def nii ku rëy bu lay xool da ngay gis ne xeeb na la ki rëy bu lay dëgg da ngay gis ne importance bi mu la war a jox defu ko ki rëy boo koy boo koy conseiller du ko mën a jariñoo parce que xol ba moo bañ yàlla nañu yàlla musal ci rëy ki rëy buy jaamu yàlla bu jaamu yàlla nga baaxut mënoo koo dindi ci moom xanaa da nga koy neexal aw cent dollars doo koo dindi ci moom ki rëy boo ko waree orienté du la mas a déglu yàlla nañu yàlla musal ci rëy moo tax yàlla nee ci xadiisul qudsi ku am ci moom lu toll ne dara doo dugg àjjana lan mooy dara li ñuy wax otom muy lu tuuti poussière benn benn benn piece of benn piece rek benn piece of powder piece ku nekk ci loo toll noonu ci xolam ci rëy du mas a dugg àjjana kon lan mooy euh, safaan safaanu rëy mooy nga fexe sellal te wàcce sa bopp te toroxlal ki nga war a toroxlu ngay doom sa waajur bu mu gis mukk sa daraja ngay xale ñi lay jàngal ñëpp ñëpp bu kenn gis sa sa sa tool noo toll noo mel dégg nga xam nga sëñ Tuubaa boo xoolee nax joom ni muy jàngalee day day xool sax day wax danaa la istirsaal ba ko def istirsaal mooy ma may wax ak sëñ Fallou mi sëñ Fallou mayu ma ma wax mais mi ngay wax dama kët man te loolu lépp mën naa defaru man maa maanaam su may wax fi mu ne nii di di jox ay conseil gis jamono bi ni muy doxee jamono bu nekk samay bëti xol day génnee ronqañ parce que damay gis jamono bi ni muy yàqoo te euh, am na ñoo xam ne bala ñuy xam rek ndeysaan xamadi ray leen yéen may dégg lu baax a baax waaye daal li am solo mooy fexe leen ba nekk ci ñi nga xam ne dañuy bëgg nasiha di bëgg laa biire te yéen soxna yi li ma wax léegi rek gën a am fulla ci seen bopp te nangul seen waajur yi foofu la ñuy jàngee nangul sa jëkkër boo mokkee ci say waajur rek mokk ci sa jëkkër boo mokkul ci sa waajur boo mokkee ci sa jëkkër rek ay yara la fa mokkal ay yat te yéen moom amul Amérique xanaa soxnaante xëy dama ko nangu woon ñaare ñaare bi baax. Eh, macha allah. day mel ne am na. xam hmm? nga bëggoon a dolli ci Ibrahima. Ibrahima. waaw ah Ibrahima macha allah ni nga ko waxee am na solo lool. Dorkaal ñu ngi koy ñun baax ah damaa yor soxna te ñu baax ñu yow fi na ngeen am jëkkër yi xoolal ay ci barke alxuraan. ani ko yu góor yi tamit yàlla na ngeen am soxna yi xoolal ay yàlla na yàlla dajale ci àjjana. amiin. ni ñu bokkee nekk ci daara ci yàlla nañ ko bokkee nekk ci kër ci pàkki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci àjjana bokk ko nekk ak Serigne Touba radiyallahu anhu bokk ko nekk Cheikh Alhaaji Malick ak Serigne Abdoulahi Niass ak maam Ibrahima Niass ak magi Sénégal yépp yàlla na ñëpp dugg àjjana képp kuy wax laa ilaha illa allah yàlla na dugg àjjana képp ku mas a wax laa ilaha illa allah gëm ko benn yoon ci xolam yàlla na dugg àjjana àjjana du fees àjjana du fees bu naroon a fees sax ñu ñaan yàlla mu yokk ko ba ñëpp xaj ca insha allah te àjjana du fees képp kuy wax laa ilaha illa allah yàlla na dugg àjjana mbokki facebook yi mbokki youtube yi mbokki Bichri TV yi yàlla na yàlla ñëpp dugal àjjana amiin buñ faata waaye bala ñuy faata it yàlla nañ am àjjanay àdduna ci barke waa Alxuraan lan mooy àjjanay àdduna xol mu féex di xàtt rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah